merci beaucoup Bécaye waa Guédiawaye info donc ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp journée bi ba mu commencé ba léegi EPAS Bodès engagé pour l' action sociale booloo defar suñu Sénégal suñu 72 heures les 29 30 et 31 décembre 2018 démarré nañ ko démb par une activité de don de sang comme ni ñu koy waxee acte citoyen la donner du sang pour sauver des vies man su jógee ñëw nañ si journée éducative sensibilisation sur les réseaux sociaux nous parlons aussi les pouvoir de faire dafa théâtres théâtre pour que a gens soient Nous di wax mouvement uniquement lu ko intéressé le développement social avons la commission santé la commission environnement la commission féminine la commission éducation et sport plus commission culturelle Nous avons ne lan de thème réseaux sociaux dañoo gis ni réseau sociaux yi baax na mais problème bi mooy ñu koy utiliser parce que réseaux sociaux lan la lay permettre mooy rapprocher les gens soo nekkee bitim réew nga nekk fii di nga mën a di waxtaan ak say famille say xarit say ñëpp réseaux sociaux yi dinañ la permettre ngay def ay recherche su fekkee élève ga ngay am ay possibilités de stage ak ay possibilités d' emploi réseaux sociaux aussi dinañ la permettre yow su fekkee ne da ngay def dans le domaine culturel ñëpp di la xam say vidéo information yi lépp mais dañoo gis ne ñu koy utiliser moom moo baaxul parce que pièce de théâtre bu ñu fii wane na ko mooy ñëpp ñoo xam ne dañuy dugg si groupe whatsapp yi di si def naka suñu noonu ba yàlla dina indi loo xam ne ay ñaaw tës la su ko nekkee xale da ngay def attention lépp loo xam ne da koy def parce que xale moom mooy nekk mag te bis boo nekkee mag da nga war a éviter yenn yi.

Je m'appelle Monsieur Condé. Monsieur Condé Je suis enseignant à Pékin. Donc, je euh, suis animé un génie en Mais ce que je suis c'est que les franchement parler. Parce que si je les résultats, les filles ont 43 points, les garçons 15 points seulement. Et question vraiment c'était des questions trop élémentaires par rapport à ce niveau-là, niveau CM2 là donc préparer donc euh, normalement il y a des questions élémentaires, nous mais tout simplement moi, góor ñi jànguñu jigéen ñoo même si classe ici école le constat est général même si examen nous, muy CFE muy BAC e chaque fois jigéen ñi bon rang premier donc je pense que les responsabilités euh, sont partagées d'abord parents yi enseignants et aussi les élèves comme le aada les réseaux sociaux il euh, y a des avantages comme des inconvénients comme lu aada expliqué parce que avantage mooy réseaux sociaux ça permet d'apprendre da ngay jang lo xamul bo duggé ci amna ay application xamante ne rek nga am su mais par contre bu que c'est regarder ay ay obscènes, ou bien de se de, vraiment de dire des choses xamante ni amul benn sens amul des choses inutiles donc dans ce cas c'est des inconvénients donc je pense que je euh, ngi sant euh, Ada et dernière je m'ai invité cette année mu invité à moi. donc man Mangi, c'est mouvement espace Bodès je me suis engagé au fond chaque année Inch'Allah, je ko apporter sa contribution par rapport à ça. merci beaucoup monsieur Conte. comme nous le savons, comme rek comme que le mouvement est dafa commission donc dañuy jox Adja Adja moo xam ne moom mooy représentante jigéen ñi tey ñu fi nekk commission féminine bi mu sànni si ay kàddu avant ñuy jox seer mu tëj. maa seen wàccuwaay di wax kontaan nan lu baree bari bari bari ndax woote rek nit ñi wuy si la yombut mais dañuy sant yàlla bu baax a baax di sant tamit nag président Aada. suñ mouvement bi daal mi ngi noonu ubbi nañ buntu pour ñëpp na jigéen ñi ñëw. li nekk si biir mun koo toog sax di wax liggéey yaa ngi fi lépp maa ngi ñaan sama mbokku jigéen ñi ñu ñëw boo ñëw nag doo mën a xam nag nekk si biir waaye xam naa ne daal nekk si biir pour nit ñi rek la waaw am nag njariñ te pour nit ñi dong la maa ngi ñaan sama mbokku jigéen yëpp ñëw ñu jàppale mouvement bi mouvement bi mouvement aada mouvement bi ñëpp la dañuy ñaan ñu ñëpp ñëw di ñaan yàlla bu déwénee 112 heures bi gën a neex yàlla ma na ko kontaan nañ si yéen baax a baax li nga xamante ni moom moo ñu fi moom moo ñu fi dajale woon ñun ñëpp muy 72 heures espace Borès yi dugg nañ ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin ñuy sant ñi nga xamante ni mooy waa géejawaay yëpp yi nga xamante ni ñoom ñoo fi teewoon di gërëm bu baax xale yi ak mag ñeek di gërëm bu baax président Ada ndax mouvement espace Borès dafa doon loo xamante ni njariñu kase la ndax dafa doon loo xamante ni yeete bi nga xamante ni moom la ñuy yee jeunesse bi mais dafa am njàngale mu rëy mu ci nekk képp koo xamante ni bokk nga ci di nga ci jëlee ay jàng yu mag a mag a mag mu doon loo xamante ni daal njëriñu kase la ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox yeneen activité ci kanam incha allahu rabbi di remercier di féliciter aussi Bécaye nga xam ne sunu xarit la le PDG de Guédiawaye Info di wax ne ñëpp na ni aimé di ko suivre sur YouTube dafa disponible saa yu ko woowee mu ñëw

ñëpp ñoo xam ne bëgg nañ def formation mën nga rapproché aussi Mamadou ak Baye ñoom ñoo xam ne ñoom ñoo nekk si commission formation éducation bi pour les bourses wàllu santé bi yoom yoro aussi compté ñu ngi koy gërëm di ko sant démb moom moo assuré woon don de sang bi mais tey dafa liggéey commission féminine bi gis nañ leen ñëpp ngi liggéey ñu ngi gërëm yoom aada mbaaxaan gis nañ fi pièce bi sketch bi de qualité boo xam ne def nañ ko suñu papa yi suñu yaay yi ñëpp ñoo xam ne suñu xewlee ñu ngi ñëw ngi leen di gërëm wa koñ bi sans oublier nak mention spéciale wa Ngaye sunu artiste bi mi ngi tudd Baye Diop bis ma leen démé si euh, WhatsApp wala Facebook réseaux sociaux yi nga gis les paroles du fou mom leen di wax c'est un gars boo xam ne il est très talentueux ngeen koy suivre ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax ba yeneen activité inshallah. Et Espace bonheur, ensemble nous pouvons merci beaucoup jaajëf